ɓeɗo jiinilam mais alors champion tey ñu ngi la fekk stade tout d'abord di la wax courage di la jox ay encouragement yaa ngi ci yoon bu baax na nga ci tegu respecter encadrement ak staff man moom ku ma gis dama lay conseil lool est que yaa ngi liggéey ci loolu Liss waa waaw allah ñu ngi ci kaw bu baax waaw tey dañ la gis stade gis fi Tapha Mbeur lan moo xew. doo war a def ma nag moom quoi. a ak Tapha Mbeur. waaw te la moo la dugal ci combat. li ma dugal ci combat bi. waaw kon lu ma daan dugal ci yeneen combat rek. waaw ah, mais xam gars maanaam. daa lu ma bëgg a wane ci Tapha Mbeur. Ah. waaw parce que damaa yàgg a bëre. ñu naan li njaax jox ñu ko ay moromam wala li njaax dañ kay tànnal yoon. ñoom ñoo sepul seen bopp Tapha Mbeur ba mu ñu jox ma ko. waaw bu ma ko daanee anaan dinañ dinañ ma nangul quoi waaw. da nga gis ne ñi nga daan bëreel ñëpp duñu say morom. waaw ñëpp ñoom mag ko ñoom ñëpp te amaan tam yàlla mu ñu si suturaal ñu si demal suñu fulla ak suñu fayda yaa ngi dégg waaw Tapha Mbeur moom lamb la rek kon maanaam lamb yi fi a jaar. mais tey est-ce que nit ñi bu ñu waxee ne Liss Ndiago xaw na tëb benn escalier dem fekk ji Tapha Mbeur lan ngay si. lu ma siy tontu maanaam loolu amul lu ma siy tontu yaa ngi dégg Tapha man bu ma tëbee wala bu ma tëbul moom xam na ko waa yaa ngi dégg. waaw te après la ñuy comprendre. waaw maanaam preuve bi ci combat na tontu bi ci loolu mooy tontu bi. bu maanaam bu bu bi jullee gee ba ñu bëri si nañ comprendre. bu ñu gee ba julli sa va ba gars tas leen xam la. mooy ñi may ba baraage. dafa am bët moo ci gën billaay. gëm naa la mais dama naan la bàyyi li ngay wax. waaw. moo tax ma lay wax laa la wax. waaw. après ngeen comprendre yéen ñëpp. ñun ñëpp kii bu ma ko jàppee damay roji put bi xam nga roji sa put moom nee na ku mën sa morom yëy yaa ngi dégg waaw wóor na maanaam ku ku mën a sàkk mi te mën a yëy mais loolu dama koy tegee ne yaa ngi dégg bu ma ko jàppee damay damay roji put bi mais gay na mer la fanaanoon maanaam dafa jógee si defet di jooy ay rongoñ ay rongoñam feregul ba tey mënul sax wax ak presse bi damaa bëgg mu jooy deret waaw waaw moom dafa jum quoi warul jógee si defet bari jël lis njaaw waaw yaa ngi ne bi dafa yomb ci moom loolu la ñu wax. mag bu juumee da koy corriger waaw. mag bu teggi ndawal quoi. waaw Tapha Mbeur maa maa ko dàq xeex maa gën a ñeme lu métti maa gën a xotteeku. ndaanaan ngay waxal de lii. waaw yow ndaanaan ñooy daje. déggoo ñu naan la loo baax baax am na ku la gën a baax. yee loolu doon ndaanaan wal loo doon champion am na keneen ku la gën a doon champion. Tapha Mbeur na yaru rek. waaw dal jaamu bu baax. xam ngeen ne combat choc waaw combat soog la waaw si nit yi quoi. man leer na ma leer yàlla dafa mbër suñu yaram yi bu laalante day tëdd. da nga ko yokkal combat bi. combat la kon yi fiy jaar. ko teg ci doole ci mystique wala ci lan. xale laa nekk si yoon war a confirmer sama yoon. moom xale la xale waaw mais man dama war a confirmer yaa ngi dégg te bu ma jàppee naa ko confirmer waaw. bu lanu bu yaru. waaw mag bu juumee da nga koy saay gaynde tuumaatee nga gërte ko bu ko defee ba muy ñetti yoon da nga koy rey moo ko tey e eh, mawɗo noonu premier face to face Liss Mbeur mi ngi jaay doole. kii combat baa ngi noonu combat bi taxaw na Liss Ndiago jóge ci ndam Tapha Mbeur jóge ci défaite booy xool ñoom ñaar seen yoon bokkul mais làmb boole na leen ñoom ñaar bi ngi noonu làmb gi noonu làmb làmb du du du ëmb day xëy rek wasin Liss Ndiago ngi noonu dégg li mu wax. nee na ko moom un combat dangereux entre ces jeunes lutteurs kii nekk ci yoon di Tapha Mbeur kii nekk ci yoon di Liss Ndiago Tapha Mbeur jóge ci défaite Liss Ndiago jóge ci victoire booy xool ñoom ñaar seen trajectoire bokkul ñoom ñaar dañoo ñëw daje ci làmb ñoom ñaar dañoo ñëw daje kii di def yoonam ñoom ñaar kii def yoonam kee def yoonam ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw daje dafa am mbër kii prend un combat boo xamante ni kenn xamul moo tax mu jël ko mais ki mu jël xale la boo xam ne dafa prouvé mais ñaari mbër yoo xamante ni dañoo am ginnaaw combat boo xamante ni coow li dana bëri commentaire yi dana bëri waaye ci biir géew bi mi ngi noonu ñoom ñaar ñu ngi leen di présenté Liss Ndiago l'enfant de Diamaguène Tapha Mbeur l'enfant des Parcelles Assainies dégg ngeen nee na si bés ba ma duma ko daan ko waaw di jéy bu baax di nuyu président waaw kii bu nee man dama waroon dëgg waaw loolu ay waxu posaru ginnaaw la yaa ngi dégg waaw moom lu ma doon dégg muy wax benn wax nee na maanaam góor du yërëm góor waaw yow boo maanaam boo yërëmatu da ngay yërëmatu fu ñu yërëmee nee na yow ku mën sa duma yooyu la wax ku mën sa séegu ba moom ay wax li ma séeg moom mooy arbitre siffle ma def ko ni nee na jàppee dafa koy ba rooji bu ko jàppee da koy rendi ba rocc ci pul put bi mais Tapha Mbeur nee na ko sekku maak moom wax arbit bi sifflé ma def ko li ma ko war a def ñoom ñaar moom la ñuy présenté noonu merci à Dieye merci à Abdoulahad Ndiaye combat amateur la combat bu neex na liis Ndiago ngay dem Liss a ngay dem ma ngay wane boppam Tapha Mbeur dem na yoonam ma hudo jiini lam